meeku ci seen licence yi euh, ak ñu war leen ko jox juróom-ñetti weer a ngi nii ba léegi am na ay yàqu-yàqu nag ndax xëy nañu taal ay pën am na it benn oto bu ñu taal ba mu jeex daanaka lu soriwul dara hôpital ba euh, benn nit teg nañ ko loxo foofe ca Ndar Géej dañuy dem fekk ji fa Ousseynou Diop ndar tàngoon lool ci bisu talaata bi nappkat yi nekk ci quartier yi di Guet Ndar Santhiaba ba Goxoma ak Hydrobase mer ba futtu ñoom ñu daal di baare pont Moustapha Malick gay benn oto demul benn oto jàllul seeni mer la ko waral bokk na ci licence de pêche yi nga xamante ni yeex na koorug atum 2019 ba léegi la ñu gëj am lii di licence de pêche tax nag ñu mer ba futtu génn nag wane ko ci mbedd mi seen jàmmaarloo ak way takkader yi ci pont Moustapha Malick Gueye it metti woon lool ñoom ñu taal ay pneu xeer yi di jolli fu ne ba sax am ñoo xamante ni am nañ cay gaañu gaañu ci ñaari parti yëpp li waral nag seen ñaxtu bii bokk na ci licence de pêche yi nga xamante ni dafa tardé toll ci ñeenti téeméer bi ñu jëndee seen ay licence ak léegi war na mat juróom benn weer waaye ba léegi France daal di xiddeem te seen licence yooyu itam benn bu ne 1 million 740 mille francs CFA lay jar tax nag ñu ni lépp dañu bëgg mu seen ay licence ñu mën leen ko jox ngir ñu mën a nappi jamono ji nag ci diwaan Ndar géej ñàkkum jën bi tar na lool li ko waral mooy ñàkkub licence bi ñoom nappkat yi nag ñu ngay dànkaafu nguur gi ak yenn ci ay yi nga xamante ni ñu ngi ci jàmmalaay ngir lu jëm seen licence de pêche yooyu lépp mën a leer ñeneen ñuy ñaxtu fii ci ndakaaru bu ngeen di fàttaliku ñi ñu tojoon seen kër fële ca cité Tobago dañoo booloo woon ci benn collectif ngir ñu fay leen seen àq ak yelleef am na ñenn ci ñoom nag dañoo gis ni dafa am parparloo ay liste yu ñu taxawal ngir ñëpp ñu bind seen tur ñu mën leen a fay seenum dàmpaay waaye li ñu nemmeeku ñu ne mooy ah, du ñëpp ñoom ñoo ca nekk moo ne njiitu réew mi dafa ne woon ku ca nekk ñu jox la benn ah, benn terrain ah, fukk jàpp ñaar million Alioune Sow Sow moom moo yor seen kàddu dañ koy déglu ci euh, micro Pape Fare ñi nga ak Modou Diop. ñi nga xamante ne ñun ñoom la jiital ñoom ëllëg ñu yóbbu liste bi bu njëkk bi bi nga xamante ne ku ku jekk joxe nga cent mille ñoom liste buñ fa yóbbu ama grande si à notre grande surprise bu bu kii affaire bu kii bi génnee nga xam ne ñu fa ñu jël ko jox ko ñi nga xamante ne amuñu fa amuñu fa benn droit dañu ne ku am ku tabax R plus un dañ lay jox vingt millions ak terrain ku tabax rez-de-chaussée ñu jox la dix millions ak terrain. man am naa fa ñaar benn bi tabax naa ko R plus 1 beneen bi ma tabax ko rez-de-chaussée ñaari yëpp jotuma terrain jotu te ku nekkoon Tobago rek xam nga ni am na Imam Sow mu ngi fii yor këram fii quoi ñun par exemple mosuñu si génnee parce que dafa ne jox leen les ayants droit ñu si ayants droit lañ bokk ñu ñu si génnee ñoo ñu tooñ ci wàllum wérgu yaram tey mooy bés bi àdduna wërngal këpp euh, jagleel euh, li ñuy euh, màggal wala bokk di xeex lii di ay cancer PNA yi pharmacie nationale d'approvisionnement génne ci nag ab bataaxal di wax ci chimiothérapie bi ñu ne kenn du fayati dara octobre lañ ko door octobre bi lay weesu ñoom ñu ne nag am na daanaka luy jéggi junni juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ci ay nit yu am jàngoro ji la ca ëpp nag ay jigéen lañu daanaka junni ak juróomi téeméer yoo xam ne faj nañ leen ci wàllum chimiothérapie thérapie boobule te fayuñu dara moom naa ne ministère de la santé de l'action sociale génne na daanaka benn milliard ngir politique boobule loolee nag di ab buntu ñu def ab taxaw seetlu ci gratuité chimiothérapie boobule octobre 2019 la ba léegi niñ leen ko waxee sànq kii di LISCA di lit di ligue sénégalaise contre le cancer moom nag nee na yëf yi daanaka baax na niñ ko dooree waaye faw ñu yaatal ko ci yeneen cancer yi ndax yëf yi mi ngi ñeel cancer gynécologique yi reportage Fatima Touré Modou Diop. benn fan ci weeru octobre ci atum 2019 nguuru Sénégal jël ndogal ni lépp lu nga xam ni nag chimiothérapie la jëm ci cancer bi nga xam ni dafay laal butitu njurukaay bi waaye tamit li nga xam ni moo di ween bi kenn dootu ko fayti fii ci Sénégal ñeenti weer gannaaw nag bi nga xam ne sax ndogal boobe jël nañ ko tey nag ligue sénégalaise contre le cancer jàpp ni mën nañu am bilan bu baax waaye nag bànqaas boobee jàpp ni nag am na yu ndaw yu ñu war a jooyanti traitement bi fukk ak juróomi garab rek la concerné am na yeneen garab yi nga xam ne dañ koy war a fajoo te bokku ci donc loolu malade yi ñoo ko war a jël en charge donc amoon na fi benn rupture mais rupture bi euh, gaawantu na réglé nañ ko. effectivement malade yi nga xamoon ne yu jigéen ñi nga xam ne ni amoon nañu cancer yooyu le euh, profité nañu ci euh, faj bi. lu jëm nag ci wàllum yeneen cancer yi lu ko mel ni foie wala sax prostate fan Fatma gënul jàpp ni rek des na lu bëri ci wàllum paj bi. mais yeneen cancer yi nga xam ne ne mooy can eh, cancer góor ñi ak yeneen cancer jigéen ñi foie prostate. ak eh, yeneen traitement ciblé wu cancer wu ki yooyu la c'est pas encore gratuit su doon sañu sago euh, Sénégal ku fiy fajoo ci sa chimiothérapie doo fay dërëm. loolee nag waral ki nga xam ne moo di présidente LISCA moom sax dafa jàpp ni lépp li nga xam ne assistance la jëmm ci wàllum koppar war nañ ko gën a renforcer. Euh, état bi daf ñu soulager bi mu jëlee chimiothérapie bi mais yeneen maladies yi am yeneen type bu cancer ñun ñoo continuer di leen di jël ñun ñoo continuer di fay seen opération di fay seen radiothérapie. ndax ligue sénégalaise amatul moyen. ñeenti fan ci weeru février bu ci nekk rek dañuy daal li nga xam ni. moo di journée mondiale lutte contre le cancer Sénégal nag def ay jéego yu bëri ngir rek daal di jàppale ñi nga xam ni nag ñooy dund ak cancer moom li mu bëgg tey mooy docteur Fatma Gueye ñu daal di généraliser li nga xam ne nag moo di gratuité bi ci forme cancer yëpp. jërëjëf Fatima Touré démb assemblée nationale voté na nag euh, loi organique ñeel budget euh, programme euh, ci teewaayu jëwriñ bi ñu dénk nafa réew mi ak lépp lu ñeel budget Abdoulaye Daouda Diallo am na yenn ci député yu bokk ci kujje gi junj nañu tuuti rapport yi cour de comptes génn te ñu ne génn te ñu ne dafa am ay njuuj njaaj yu bëree bëri ci yoreenu alalu réew mi ci jamono joo xam ne député yi fare ci nguur gi nee nañu daal état bi def na liggéey bu baax ak ñi mu àndal Habib Faye ak Mar Dieng ñu nga woon ci assemblée organique bu bees bi dina doon loo xamante ne ci lañ fas yéene tabax la nga xam ne moo di l'état wu senegal ngir rek mu gën a mën di ñoŋ anam ba nga xam ne noonee la ñuy yore mukk réew mi député yi ñoom woote nañ li ni mel waaye itam des nañ ciy toftal ay xaatim décret yu bëri ay arrêté ak circulaire ci loolee itam danañ xool anaan nan rek le budget bu Sénégal di doxee. mais xam nga loi moom su amee moo ëpp doole décret daf koy effacer si loi boobu aussi dañu prévoir ne que responsable de programme yi mun nañu leen nommer par arrêté di ministre loolu it loi bi moo ko wax ma rappelé ne surtout que amuñu si benn euh, xel pour jéem a jëf naawteef wala leneen. dina tax aussi ministre yi gën liggéey. mais aussi dina gën a yombalal député yi seen liggéey parce que foog naa ñu toogoon di wax naan député yi duñu liggéey loolu dinañu gën a yombalal suñu liggéey dineen gën a mën a woo ministre bi xayma lañ ko nattaloon lan la ci def ak fa mu toll. ñu ne léegi ñun programme bi la ñuy jox xaalis bi pour ñu tabax junni classe yi. classe bu nekk ñaata lii lay jar fukki million lay jar kon bu ñu bëggee def junniy classe war nañu am par exemple euh, di milliards pencum ndawum réew mi dikkaat ci rapport ga nga xam ne cour des comptes def na ko ucik e politique yi ñoom ñaawlu bu baax yéex ga nga xamante ni yéex nañu ko publier waaye teewul ña faree ci pouvoir bi moom di rafetlu liggéey nga ñu jot a def. ci yéex bi wala yooyu donc liggéey bi moo laaj loolu donc nag dañuy jàpp ne eh, xëy na sax moom dugal la ci loxam pour que lépp mun a yem ngir ñu mun a doxal seen liggéey nu mu waree. le dépôt des rapports de 2015 2016 2017 monsieur le ministre kenn comprendre. ñëpp a jaxasoo fi ñu nekk nii et question bi ñëpp di gën a laajte mooy à quoi va à quoi va nous servir ce dépôt là. on devrait plutôt quand même magnifier cette action plutôt que de se mettre encore à se plaindre justement de ce qu'il y a eu à faire à ce niveau là. léegi Sénégal day joge ci lu ñu duppee budget moyen dem ci budget programme loi organique numéro 2011 15 bu 8 juillet bi koy wuutu moo di. loi organique numéro 1 2020 ñu des ci assemblée nationale ak euh, député Cheikh Mbacke Bara Dolly moom moo jiite groupe parlementaire liberté et démocratie moom nag ci li mu wax mooy euh, yokkute gi ñu nemmeeku ci lu bëri lu askan wi di jëfandikoo euh, jamono jile ñu indi ci ay tontu jëwriñ bi di Abdoulaye Daouda jàllo la mu wax nag mooy gouvernement bu Abdoulaye Wade li mu def moo yées ndax ba mu fi nekkee mu ne lépp a yokk woon dañ leen di déglu député dañ leen di déglu kon bokk Abdoulaye Daouda micro bi Faye ak Malick tey jii ni askan bi ñi ngi dund tey ay jafe tey boo jëlee tey bi bidon diwlin bi nga xam ne mi ngi daan jar treize mille cinq cent tey mi ngi ci vingt mille francs boo jëlee tey saakub ceeb bi daan jar douze mille cinq cent tey mi ngi ci quinze mille francs muy ceebu risaatol soo jëlee tey euh, ceebu parfumé bi nga xam ne dix-huit mille la daan jar tey bi mu faloo tey nax na Sénégal yi yokk na ko tey mi ngi ci vingt trois mille ca loolu waxu ko woon Sénégal yi saaku soble importé vingt cinq kilos bi mi ngi tolloon ci six mille cinq cent tey jii nii bi mu faloo tey yokk na ko ba neuf mille francs kon monsieur le ministre waxal Macky Sall ne ko Sénégal yi dañu sonn fatigué nañ. amul ba fu ñu toll nii benn prix bi nga xam ne xaw na méngoo wala jéem na jege prix bu ñu fi fekkoon en benn. Il Et, les prix sont là, je pourrais vous les rappeler. Le sucre était à 700 francs le kilo. 2012, 700 francs. Aujourd'hui, il est à 600 francs. Moins 100 francs. Le riz parfumé, c'était à 500 francs le kilo. Aujourd'hui, il est à Le gaz, c'était à 4800. gaz, il y a 2900. Moins 1900, moi, c'est L'huile, il y a Le lait en poudre, il est à 3000, il est à 2800, il était à 3300. foofu la ñu ko ngeen ko bàyyi woon donc c'est ça. xam ngeen ni état bu Sénégal dafa jël dogal ne gerte ñu ko fi jëlee di yóbbu ko biti réew ci jamono ji ñu toll ñu yëngatu ci wàll woowu le nag di ko rafetlu lu ci mel ni ku ci mel ni Sidi Ba nekk euh, porte parole bu CNCR moom nag li mu gis mooy euh, daanaka ci marché bi amatul benn gerte buñ ca mën a fekk ki ñu dénk nag mu topp campagne gerte bi na muy demee li mu gis mooy état bi it def na ay jéego ndax am na benn million lu ñu toftal ñeenti téeméeri junni yoo xam ne bay nañ ko te daanaka ñeenti junni ñeenti téeméer ak junni moom la ñu yebal uh, biti réew mun Maymuna Njaay ak uh, Pape Sangone Mbay def nañ ci ab gëstu. ñeenti téeméeri junniy ton lool mooy exportation ci wàllum gerte yi nga xam ni yemale nañ ko fii ci atum ren ñu ne nag lim bi dañ ko matale looloo tax ñu jël bi la dogal. lu jiitu ñuy wax ne le 3 décembre la ñuy ubbi campagne bi fekk na ñuy génne gerte gi exportateurs yi ñoom commencé nañ jënd. non seulement commencé nañ jënd waaye daal di aj prix bi ci prix boo xam ne bii gën bi ñu faraloon doon wax wala biñ doon wax ne ñeent fukki dërëm ak ñaar daal boo kenn yées ñoom ñu romb ko loola nag kenn mënu caa tegi baat ndax da ngay jàpp ne ñun dañu bëggoon a aar baykat bi mu jot ña xam moo taxoon gouvernement bi ne bu kenn jënd lu yées deux cent dix kon waaye su boobaa nag gouvernement bi dafa dal di seetlu ne ñii commencé jënd te ñee jógaguñ ñu yëkkatiwaat prix bi ba nga xam ne romb na lo fu koowee lool fi ñu waxoon tax na ñoom jënd nañu jëndin woo xam ne wii àgg nañ sax ci 400 000 tonnes ci mois de janvier bi. producteurs yi fare ci CNCR ñoom neneen la ñu gisee. naam jël nañ ko mais xaw naa jël bon dina tax nit ñi mën a for dara mais tey moom gerte gu baaxoon yëpp gerte li ci amoon solo ci gerte gi euh, ci li ma yaakaar ak li ma foog ak li ma seetlu may. daanaka dem na ci bitim réew wala mu ngi ci loxo ñoo xam ne ñi dañ ko yóbbu bitim réew. laaj bi samp kay mooy ana la des ci production bu atum ren bii. jàppal ne bu réserve semencière yi génne nga génne également euh, capital semencier bi état bi di génne nga génne la nga xam ne dafay dem ci consommation personnelle beeg lay daw ci luuma yi da ngay jàpp ne un million bi nga xam ne bii ngeen wala lu tegal waxoon nañ ko jàpp nga ne war naa mën a nekk. danaa ko lu ma xalaatoon jënd cent cinquante mille tonnes waaw la waaw vingt mille tonnes coppe wala soixante mille tonnes kon kay gerte gi war naa des. su waree a des nañ dem jënd ko ci prix plancher deux ñi ñuy jaay ko seen usine am 237 jaay jëndee ko 237 nag nañ jàpp ni tam lu ñu wax bu dee am na ah dina xaw a jaaxal parce que man di gisatuma gerte ci àll bi. ñu fàttali ne Fatick Kaffrine Kaolack Kolda ak Diourbel ñoom ñoo bokk ci exportation yi. fi mu toll nii li ñu duppee collecte jëm ci wàllum gerte bi ñu ngi koy wéyal ci point yi nga xam ni moom la ñu fixé woon ca njëlbeen bu ñu sukkandikoo ci comité bi nga xam ni moom lañ fi samp ngir mu gunge liggéey bi. may mun euh, Maymuna Ndiaye ni nga ko junjee fële ca Kolda ak gerte bi ñuy jël ci euh, baykat yi lañu fa nemmeeku mooy euh, juróomi junni ci ay tonnes jot nañ ko fa nangu bu ñu sukkandikoo ci Modou Diagne Fada moom mi jiite Sonacos di wéy ba léegi di wër ci diwaan yi usines yi nekk mu jàpp nag ni ci bët saalumu réew mi daanaka foofu mu ëpp booy xool xayma ci lañu fa jot jël ci gerte moom Modou Diagne Fada dem moon démb kon foofu ca Kolda dañ koy déglu ci micro Abdoulaye jàlloo surtout ginnaaw bi nga xamee ne euh, gouvernement bi jël na mesure dogal ne dañuy dakkalandi lii di exportation gerte gi mu nekk euh, période bu nga xam ne war na favorable ci euh, Sonacos war na favorable ci huiliers yi ñu gis nag ne wax dëgg yàlla yàlla may nañu juumuñu bi ñu taxawalee sant bu mel nii fii ci Kolda ndax yaakaar naa centre bi tey bu fi nekk lool Euh, musiba dina am parce que wax naa léegi ne ci centre yi am Sénégal yëpp bii moo ci jiitu ndax am nañ lu mat euh, juróomi junni tonnes fii ci Kolda dong muy 5000 tonnes fii ci fii ci Kolda dong moo ëppale Ziguinchor moo ëppale kawlax moo ëppale Louga moo ëppale Diourbel kon nag yaakaar naa ne xalaat bi indi woon centre bi fii nekk na xalaat bu nga xam ne xalaat bu xalaat bu rafet la xalaat bu baax la euh, tey am nañ ko muy jënd gerte suba lu tax du ñu am xalaat indi fi ay unité de décortiquage muy unité yu nga xam ne dafay xolli gerte euh, ñu toppaat ko bu ñu demee ba ci kanam lu tax duñ fi indi unité yoo xam dafay nal dawlin jàpp naa ne ndànk-ndànk euh, moom la ñuy doxalee ba keroog ñuy jox Kolda role bi nga xam ne war na ko am ci wàllu gerte parce que nag fi mu toll nii. kenn mënatul tudd gerte ci biir Sénégal te doo tudd Médina Yoro Fula te doo tudd département Kolda te doo tudd région région région Kolda ñu desandi ci bët saalumu réew mi wax ci leneen ci umul qura bi nekk ca département bu Bunkiling foofee nag ki jiite imaam yi ak ulema yi li ñu nar a def mooy tabax fa benn institut islamique boo xam ne dañ fay jàngal xale yi diine di leen tàggat ci lu bëree bëri lañ ca gën a nam mooy am na yenn xale yu bëri bu ñu demee ba am benn at dañuy jéem a dem ca mbëkk ma jël gaalu looco yi ndax dañoo bëgg buñ ca noppee ñu mën leen jàngal ay activité lu ci ci euh, sàmm reportage foofee Bakary Konte Xaali Jàmme institut islamique umul kora moom nag ay bâtiment yu bëri lañ fa prévoir yu mel ni ay salle de classe logement talibé yi logement enseignant yi ak benn jàkk wante tamit benn centre de formation boo xamante ne dañuy spécialisé ci agriculture ak élevage. liggéey bi Cheikh Sidia Dramé euh, commencé depuis euh, plusieurs années dañuy fàttaliku ne fii. daara la boo xam ne moom moo ko sos euh, bi mu ko sosee ay gone tuuti gone ñoo fi nekkoon waaye tey jii lu ëpp ñeen euh, lu ëpp ñaar téeméeru taalibe ñu ngi fi jànge kon nag fu ñaar téeméeri taalibe di jànge jaadu na ñu yokkal leen seeni infrastructure El Hadji Sidia Darame président des imams et oulémas Mandeng moom nag moo initié programme bi dama ko dund parce que dama génne xam gis lu ma gis kibit ma ñëw fi moo tax ban képp ku may waxal rek dinaa jéem a wax ak pour nga toog parce que kenn ku ci nekk sa kër yaa koy defaree sa bopp ñaari kër yu dënd kii defar kër mu rafet nga bàyyi sa kër nga dem dëkk sa kër kii soo moytu yow doo am kër suba tax na xale yi war nañu xam ne suba ñoom ñooy Afrique. gox bi nag mu am ay jafe-jafe ci immigration clandestine dina nekk projet boo xamante ne di fixé ndaw yi. gunge ko nag mooy dimbali ndaw yi. ndax tey xam nañ ne ndaw yi nekk fii ñi ngi dem ci eh, immigration clandestine bi maanaam ñi ngi dem ci géej gi di fa dee di ñàkk seen bakkan kon état bi war na koo gunge jaarale ko ci ministre de la formation professionnelle ñuy lancer appel ministre Dame Diop mu dimbali ko ci lii ndax ki tabax ba fii ba def lii ndaw yi bu fekkee ne ñu ngi leen ni euh, tàggat di leen di di di di ji ci ñoom ay jikko ci wàllu diine bu fekkee ne def nañ leen ñu am formation professionnelle ñu am métier ci njàngale bi dana doon solution bu ama am solo. ambassadeur de paix El Hadj Sidia Dramé moom nag def na pose première pierre jàkk bu umul kuraan ñu dem ci bët gànnaaru réew mi ndar moom la tànn ngir mu dalal jagle li ñuy duppee euh, zone humide mooy diwaan yi nga xamante ni dafa am lu ci mel ni ay dex ak euh, lu ni mel li tax ñu tànn ko mooy ci wàllum aalam nag euh, Saint-Louis nekk na lu am doole ci gis-gisu ki taxawal foofu lay jëwrin biñ ko dénk environnement moom colonel Ibrahima Guèye moom mi jiite service division des zone humide ak parcs nationaux moo wax lu ni mel moom dañ koy déglu ci micro Ousseynou Diop wala bokk du ñàkk ci yeneen jotaayu xibaar ñu euh, déglu ko dañuy woy ñëw ci ponk bu mujj li li yëglekaay yi xëyee tey ñu ànd ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye fa ñaax goowu mi ngi bëgg a lakk-lakkaale gu tooy jàngoroy coronavirus gi lëmbe réewum siin l'observateur ne nañu suñum réew di Sénégal mi ngi koy tàmbale yëg ci faat yu bari bi ci njëkk mooy marchandise mi daan jóge réewum siin di dugg si ci réew mi lu ca bari ma ngay wàññeeku dem na sax ba yegg ci 35 pour cent beneen ba di président Macky Sall ma waroon a dem ca Corée du Sud waroon faa teewam ndaje muñ doon def jëme ko ci wàllu jàmm di sommet mondial 2020 pour la paix a am fan ba juróom-ñaari fan ci weeru février président Macky Sall waroon faa ngir waroon faa jote raaye buñ ko fa waroon a jox moom Macky Sall fomm na ngan dematul leneen lu ci amit moo di ci dëkk bii di Wuhan di fa coronavirus bi gën wullee ñaayu fukki étudiants Sénégal ak ñaar ya fa nekk président Macky Sall nee na seenu la ca war dëgg Sénégal mënu ko grand place nañu président Macky Sall nee na étudiants ya ca Wuhan jële fa ñu nekk indi ci réew mi mënuta nekk guddi yi ndax mooy nag matuwaay yi mu laaj Sénégal amu ko réew yi jot a rapatrier seeni doom sax yombuloon ci ñoom source populi nañu boye boo ñu tari sóoratul mu ñu wanaasu ko te toog xaar yàlla ndax président Macky Sall mi ñu yaakaaroon ngir doon séntu ci moom mu delloo si leen ci réew mi Macky far na leen bandone Les Échos mel ne ku naan ñu dafa def lu ko neex rek ndax ci jamono ji xam le doomi sénégalais ca Wuhan di leen rapatrier di indi ci réew mi mënut a nekk ci jamono jooje moom Macky Sall ca la yónnee Amadou Ba Aïssata Tall Sall ak Abdou Mbow ca Corée du Sud ñoo tagga témbe ci réewum Chine nay am na ñaar fukki doomi Sénégal ak ñett yu newoon ci réewum Chine delloosi ci réew mi ba jamono ji kilifa yi yore wàllu wér-gu-yaram yi ci réew mi ñoo ngi leen di surveiller ak di leen may gët l'observateur dolli ñu ci ne jàngoroy coronavirus ga am ci réewum Chine tax na kilifa yi réewum Sénégal toogatuñu waa ministère de la santé ñoo ngi leen di xaar tey jii ca poorum Dakar waa duwaa nit noppalu wuñu benn yoon gile yoon ñu bàyyi waxi coronavirus ga ci Chine te wax ci waxi mi ngi laaj ndax corps de contrôle yooyee amati nañ fi njariñ ndax du leen boole lakk ba ñu defub doom ñëpp noppalu ndax seetlu nañu ne corps de contrôle yooyee ñaare fu ñu defee seeni rapport bu ci président Macky Sall dëggul tànkam li ñu def moo di jël rapport ba def ko ngànnaay di ko xeexe ak di ci santaas ay opposant gis nañu fit ay responsable yu fare mbokk yi di euh, jéggalu bu baax a baax ci jafe-jafe yooyu la ci li ci yëglekaay yi fii la ñuy yem ci xibaaru digg bëccëg gi di leen jox rendez-vous 19h30 incha allah ci yeneen jotaayu xibaar di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm.